ngeen koy njëkkee rek moom mi nga xamante mu ngi xëy rek di wax si li nga xamante de moo di ay actes yu garaaw garaaw yoo xamante tey moo di sécurité mooy maanaam tey kaaraange doomu aadama yi mu mel ne nag tey dafa am euh, euh, maanaam dafa am ñoo xamante ni tey dañoo attaqué Senelec ah soxna Amina dafa mel ni sax am na ay images yoo xamante ni gars yi gis nañ ko. comme ni nga ko gisee ci nataal noonu lañ ko daal di fësalee nee nañu dafa am ñoo xamante ni dañoo moo nekk ci sortie bi ginnaaw buñ ko euh, jàppee comme suspect waa sûreté urbaine ñoo leen jàpp ku ci tudd Mor nekk membre euh, nekk membre ci euh, li nga xamante moom moo di groupe commando bi waaye nag moom ci saa si dafa daal di muyee ku ñuy wax Aliou ñu ñu gën ko xam ci turu dun xaaf ñoom tamit ñu daal di tourné waat dut baaraamu tuuma ku ñu wax Ousseynou Seck alias euh, Akhenaton dafa mel ni loolu la ñu bind ñoom daal nee nañ jamono ji ñoom ñoo doon attaqué Senelec bi ñoom ñoo doon attaqué Senelec bi mu nekk tamit lu doy doy waar waaye ba léegi rek yaakaar na ne ki nga xamante ne moo di euh, ki ñu woowee Ousmane Kabiline Diatta moom mi nga xamante ne nee nañ dañ ko jàppee woon ci siège Dem Dikk bi ginnaaw loolee nag moom ñenn ñi sax nee nañu bawoon na wàllum terrorisme bi euh, wàllum li ñuy wax sax rebel bi rébellion bi laataa muy ñëw fii Sénégal ci jamono yi nga xamante ni dañoo waxoon cessez-le-feu ca diwaanu Casamance waaye teewul ni yoon teg na ko loxo fas yéene poursuivre enquête bi defal nañ ko mandat de dépôt defal nañ ko mandat de dépôt kii nag moo xam lañ mën a wax ne am na beneen mandat mandat boo xamante ni te mën at lay nekk rek moom Sadio Mané bi nga xamante ni tey rek jóge na Liverpool dem Bayern pour signer fa contrat wu ñitaat daal dinañ koy officialiser démb ci àllarba bi officiellement kii nii di Sadio Mané léegi Bavarois la nekkatul waa Liverpool waaye teewul ni nag ah, defal ay témoignages yu baree bari ku ci mel ni Klopp ba ci Salah sax daal dinay def ab publication jamono ji nag moom accueil bi ñu ko defal moom la ñëpp di waxtaanee. accueil bi moom la ñëpp di waxtaanee waaye ba léegi rek ci li nga xamante rek tey moo di mbirum politique si la ñëw rek mu ngi alerté ah, euh, ñi nga xamante rek moo di moo di waa Amnesty ba si sax ku si mel ni Alioune si li nga xamante ni rek moo xew jamono jii nii si réew mi. askan bi dañuy xeex ngir am liberté liberté bu ñu bëggee wax liberté bu ñu bëggee xeex lenn ak lenn looloo waral nag société civile bi dafa daal di rek invité ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Nations daal di dugal seen kàddu ci combat de liberté boobee ndaw ñi tax na daal ay vérité yu rëy rëy daal di nay jóge ci gémmiñu docteur Abdourahmane Diouf daal di koy jëmale ci yeewee askan bi waaye tamit di leen rappelé waat rek li nga xamante ni moom moo di institution yi. concert de casserole la ñu wax nag et de klaxon dafa mel ne nag noonu la demee démb nag moom laataa sax vingt heures di jot askan wi ñëpp daal di nañuy génn ñu yor oto ak moto ñoo ngi doon klaxonné waaye nag ñenn ci jigéen ñee góor ñi daal di nañuy fëlee seen buntu kër yor ay casserole ak ay couvercle doon ko Arena moo tax nag ñuy wone waat nataalu Sonko ci biir journal Vox Populi mu nga taxaw nag sa buntu këram yore ñaari kubéeru cin di fëgg ñaari kubéeru cin la yore moom moo joxee li nga xamante moo euh, koñam xumoon na lool donc yemul woon do dong ci diwaanu Dakar am na yeneen région sax yoo xamante ni doon nañu fëgg seeni bool Ousmane Sonko ñu daal di koy duppee chef d' orchestre. ñu daal di koy duppee chef d' waaye ba léegi rek ci li nga xamante ni rek moo di mise au point de Aar Sénégal dafa mel ni nag tey à Sonko et compagnie dafa mel ni nag fi mu toll nii moom euh, gars yi dañuy accuser euh, maanaam tey opposition bi ngir li nga xamante ni mooy maanaam tey euh, di di di lii politique li nga xamante ni moo xew jamono ji ku ne xam na ni mbirum politique am na fi doole lool ndax xeex bi nga xamante bi ak pouvoir bi ñoo koy xeex ba tax na nag Aar Sénégal ñoom ñoo ci daal di yëkkati seen kàddu ngir jéem a rek defaraat bu baax a baax Sénégal ñëpp daal di nekk ci jàmm ñëwaat nañ tamit nee organiser woon nañ benn manifestation ngir ñaxtu rek li nga xamante ni moom moo di wàllum élection bu 22 candidats yoo xamante ni ci euh, injustement lañ leen a téye woon waaye teewul ni nag dafa am ay meilleure manière yoo xamante ni moom la ñu war a utiliser rek ba yegg si ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg te du ñu déranger benn yoon tranquillité bi. te du ñu te du ñu déranger benn yoon tranquillité bi moo tax rek nga xamante te moo di docteur euh, Cheikh Tidiane Dièye moom na rek nga xamante ni te moo di CEDEAO parce li nga xamante ni rek moo di liberté de manifestation. ni Sénégal amul nguur ba tax na gisuñu ku ñu mën a boolee ak suñu njiitum réew président Macky Sall ba mu leen di fajal li nga xamante ni moom la ñuy ñaxtu Cheikh Tidiane Dièye nag li mu gis comme point de vue mooy que ni dafa jot lekk ñu daal di euh, waa Nations Unies ngir ñu daal ci dugal seen loxo tranché une bonne fois pour toutes waaye yemul foofee tamit ba ci CEDEAO sax bëgg nañ faa jàll parce que CEDEAO sax bëgg nañ saa jàll moo tax nag ki nga xamante Macky Sall moom dafay chamboulé li nga xamante ni rek moo di administration territoriale bi. loolu la gis nee da koy daal di chamboulé ndax gis nañu daal lu fi baree bari tey jii dugal na ci loxoom ah, teg ci tamit nag li nga xamante ni moom moo xew digganteem ak opposition li nga xamante ni moom moo fi nekk ñëw na tamit ci li nga xamante ni moom moo di gouverneur yi préfet yi ak sous préfet yi ñëpp daal dina leen di duut baaraam. ñëpp daal leen daal dina leen di duut baaraam soxna Aminata Ndiaye waaye nag noonu la ñuy di def rek daal di bi nga xamante ni rek moo di journal bu record ba léegi Euh, euh, euh, transfer bi nga xamante ni rek ah ki nga xamante ni moo di Sadio def na ko muy maanaam tey jóge na Liverpool dem fële sa Bayern de Munich. moom doomu Bambale bi officiellement nekk na Bavarois comme ni ñu ko waxee jamono ji Bayern de Munich foofu la fa séenee tàmbale ay premier entraînement mi ca jiitu ginnaaw nag ba ñu amalee transfert bi donte sax négociation yi métti woon na yëkkati na ay kàddu yu njëkk ba mu amalee conférence de presse rek. am na am mission yu baree bari war yoo xamante ne war na ko faa accomplir indi na fi xam-xam te tamit soxla na daal di fi uh, jëlee xam-xam laataa mu fi uh, jógewaat Sadio Mané nag bokk na ci li nga xamante ñooy nga xamante ne ñoom ñoo di dix meilleurs joueurs ci moment bii ni ñu nekk. ci moment bii ni ñu nekk mu nekk lu am am am solo waaye ba léegi rek soxna Amina Ndiaye Euh, dafa mel ni nag euh, ki nga xamante ni tey moo di moo di Boniface Ndong euh, nekk ante ancien international de basket fi toll nag moom mi nga xamante ni moo jiite tamit basket Sénégal bi mu ngi yëkkati nag ay kàddoom di wax. waaw nee na la objectif bi ñu daal di qualifier li nga xamante ni moom moo di mondial bi ñu tëddee moom la ñuy rêvé te fës nañ ñu yéene def ci daal di ciy àgg ak jàmm. ba daal di àgg ak jàmm kii nag moo àggul ak jàmm muy soq bi nga xamante tey moo doon bëri ak franc dimanche passé waaye ba léegi rek moom soq tamit gis nañ ko démb mu yëkkati ay kàddoom wax nee na Franc li mu waxoon def ko maanaam tey 30 secondes yi mu waxoon ne moom la koy may bu ko xaaree bu bu bu jeexee te ñëwul mu dem fekk ko dafa mel ni daal neena na Franc tenirul tenirul parolam jàpp na ni la mu waxoon defu ko waaye teewul ni Franc li nga xamante ni moo nekkoon objectif am mooy am ndam ci kawam daal dinay am ci ndam ci kawam waaye nag soog moom tey dafa yaakaaroon ni Franc tëkkoom yëpp ni mu ko doon waxee noonu la ko fasoon yéene defee waaw loolu nag li si ëpp rek des mun ko tromper noonu la ñuy daal di def rek daal di jàll si biir journal bu sunu lamb xëy na nag rek di wax ci Émile François Gomis diggante 90 ak 2002 jàpp na ne moom euh, ñi nga xamante ni tey ñoo fi ëppale ay ndam si la journal bi ñu wane nee na Franc dafa bëgg a def li nga xamante ni tey moom la fi yéex Kaya Diop ni defoon Ah, ak ki nga xamante ni rek Modou Lo mi ngi marqué ay empreinte am bariwul ay mbër yoo xamante ni jamono ji ñooñu continue di am ay victoire ba tey te déggaguñu wàcc ma naa ah, ci mel ni moom ak ki nga xamante ni moom la ñuy wax jamono ji ba sax daal di def entrée ah, moom ba mu amantee ndam ci kaw soq jàppoon moom mooy freiné li nga xamante ni moom moo di victoire yi ko tegle moom nag fi mu fu dul record bi nga xamante ni Yékini daal dina ko woon battre ci arène nationale sénégalaise. ci arène nationale sénégalaise moo tax nag mu jàpp na yëg moom Franc moom raw na rek ki nga xamante ni rek moo di moo di moo di euh, Balla Gaye 2 Lac 2 Eumeu Sène ba si bee sax ba si sax ñooñ noonu nga xamante ni te yaakaar na ne Franc def na euh, lu tolloog 11 combats 11 victoires yoo xamante ni amagul defet waaye ba léegi rek ci biir journal bi xëy na tamit di wone. Alioune Seye numéro 2 nee na nag pare na pour bëre ak nga xamante ni moo di loolu la wax pare na pour bëre ak Franc bu fekkente ni combat boobu ñor na Boucar yow laa koy laaj Franc war na mën a jël Alioune Seye jamono ji am de. ñoom ñaar combat bu neex la combat bu jaadu la yaakaar naa ne bëree dina neex parce que Alioune Seye bii nii bu leen fàttali ne na ak Modou Lo bu métti combat bu neex waaye ba léegi rek ci biir journal bi tamit wane nag bëre nga xamante tey moo di doomu dàngu loolu la wax nee doomu dàngu la teg bët jamono ji bu fekkente ni promoteur pare na pour tëggu ko moom pare na pour daal di bëree ak moom ndax jàpp na ni adversaire de taille la dem na sax bana bu nekkoon lekk na loo xamante ñu bari magnifié woon nañ ko waa Pikine ñëpp bu ñu taxawandoo wee képp ku am combat ñu daal di lay eh, jàppale képp ku daal am combat ñu daal di lay jàppale kii nag dafa am combat moo tax mu wut ñu ko jàppale muy Ada Fass nee na nag dafa recruter ki nga xamante ni tey moo di coach Socé ak Djily Mbaye pour rek ñu jàppale ko su ko defee le 26 ah juin mu mën a daan Coly Faye. bu diggante Coly Faye ak Ada tamit combat ci biir combat yi ñëpp a koy xaarandi boobaak léegi Ada Fass nag juumul daal dinay wuti doole ndax nee nañu booy euh, nekkee ci combat tamit da dem xool ku la ko gën a xam gën la koo miin mu daal di la koy jàppale ba tax na moom euh, ki mu teg bët rek moom moo di euh, coach Socé ak Djily Mbaye jàpp na ñoom ñoo ko mën a jàppale ba mu am ndam incha ci bés bu a la nuyu di lay ko dafa mel ni li lañ leen indiloon xibaaru bi la pare jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah.